aja jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen sit bii di wasaare amaat nañu mbégte ak kontaan te jàkkaarloo ak yéen comme saa su nekk ñu koy defee ci seen émission diine ak jaar-jaar nee naa leen nag diine ak jaar-jaar comme nu ñu koy defee chaque jour ma ci ànd ak sama góor sama xarit tey nag keneen ki yaakaar naa ne dafa daw deuxième Modou Sène sëñ Habib ñu ngi lay nuyu. est-ce que Sène wax na la mu ne. seen xam naa gelam yi la seeti xam naa dafa bëgg a tëj saison bi. non bu la waxee loolu. dafa bëgg a tëj saison seen kilifa la de. kilifa la seen xam naa ko sëñ Habib seen man maa yar xam naa ko bu ah, baax seen kilifa de. Hmm? gelam yi la seeti day da leen di kiiweel nii rek yéen waa wasaare. Ah. ah gel yi la seeti xam nga moom daa bëri ay gel. ndeysaan xam naa bu commencé wul tëj saison heure bi. ñeneen ñi duñ si deux cent ak trois cent. est-ce que ëpp ko. ah bon. ah eh, seen moom jàmbaar la di. <laughs> seen daa dëng de <laughs> comme yoo. acca <laughs> euh, comme na woon foon rek seen korité hmm. mooy suñu mbégte. dellu ci waat si émission bu mag bi di diine ak jaar-jaar di si ànd ak système benn séeréer bu nice mhm. dem naa noonu la ko xale yi waxee de waaw noonu lañ koy waxee de waaw ñoom fu ñu jëlee séeréer bu nice maanaam danga nga ko judduwaale wala boog yow dañ la ko euh, takkal wala boog kan moo la ko njëkk wax non damaa bëri ay yaay nag xam naa ci sama benn yaay bi lañ ko jëlee ah d'accord moo la wax séeréer bu nice waaw ñoom ci ñoom lañ ko jëlee njoon ok moo taxit séeréer bi nice na kon nag yéen ñi kon séeréer bu nice baa ngi nii amagul jëkkër nag <laughs> suñu abib yooyu yëpp bu ko ci wax. ah du tax <laughs> dama bëgg kat ah, ma gaaw lekk guru guru càmmiñ. Ah. loolu laa baax loolu ah. tax di. waaw yàlla baax na fi mu nekk nii koor gi xam naa li si des bëriwul. faa xam naa lee mu dem bu demee rek man naa topp ci ginnaaw. Hmm, yaa ko ñemee tudd de waaye man tudd ma. daa toog rek puusul paasul. acca mooy rek ko pari de attention sinon du fay de. <laughs> acce comme ni ñu leen ko waxee chaque jour émission diine ak jaar-jaar ma ci ànd ak nag ki nga xamante ni moo di sëñ Habib ñuy am mbégte saa suñuy jàkkaarloo ak seen li nga xamante ni moo di seen i ndax kat ma koy waxee chaque jour seen mbégte mooy suñu yitte waaye sëñ Habib daa mel ni koor gi li si des bëriwul de balaa ñoo dugg ci débat bi daa mel ni jamono yi ñu ngi ci woor wacc bi mooy dernier eh, li nga xamante ni moo di numéro si beeru koor bi woor wacc moom baaxul moom ah hmm, lu baax war téye daal moo baax waaye war wëcc moom baaxul. war wëcc baaxul. xam naa daal tey mooy leetu xadar moom. Mhm. waaw tey bis bu am solo la. dëgg la ñu waajal ko. Mhm. yàlla nag eh, def na si ndeysaan lu ra lu lu rafetati. Mhm. waaw nit ñi it ndeysaan ndax xam nga dañ lan def ñaar ba ñett. waaye dafa mel ni mbir mi ren dañ ko boolante maasale ko. maasale ko mu doon benn jour. ah man naa nag yàlla wàccee si xéwal ak naataange. Mhm, incha allah Sénégal joxe si jëm kanam rek. Mhm. yal nag yàlla def. macha allah amin amin incha allah bu ñu génnee ci li nga xamante ni moo di woor wàcc nañu bàyyi woor wàcc te jàpp woor tey ah. moo gën a wóor de. <laughs> yàlla baax na sëñ Habib dañuy dugg ci li nga xamante ni moo di débat bi. dañuy njëkkee ci li nga xam ne moo di politique bi. Hmm. politique bi fan yi gis nañu musiciens yi gis nañu journalistes yi. Hmm. Hmm. ku ci mel ni Pape Djibril Fall moom mu ngi ci. ku ci mel ni Ken biis moom mu ngi ci. naka nga gisee ñooñu nga xamante ne ñoom ñu ngi bàyyi seen li nga xamante ne si la ñu nekk mooy aar bi di dem ci li nga xam ne moo di politique bi. waaw politique bi de comme que léegi métier lañ ko def. Mhm. Euh, ala kuliyaan ñëpp jëm si jëm. Mhm. daw jëm sa. Mhm. waaw métier la te métier mu gaaw a am xaalis la. ngay gis sax ku amul xaalis ñooy la ah demal politique yi. parce que boo say dugg am xaalis kon kay ñëpp politique yi kon. te jombul kenn nag. wax dëgg yàlla jombul kenn de. waaw man sëñ Habib mii boo dewoo ma déggee ma sas parti de bu mu la bett de. <laughs> sëñ Habib booy sas ban parti ngay sas ban parti ngay dugg. ah. booy sas si ban parti ngay sas wala ban ah. parti ngay dugg. en tout cas daal danaa dugg si parti danaa sos parti. Mm. bu si mën a jàpp daal ma dugg sax. ah waaye daal pour mën laa wax lu leer daal. Mm-hmm. mooy ne politique daal léegi métier la. Mm-hmm. waaw métier la de. Mm-hmm. ku bëgg am xaalis xaalis bu gaaw. bëgg dajale mbooloo mu bari. bëgg am bës bu kawe. Mm-hmm. dugal ci politique. boo ci duggulee nga am xaalis. Mm-hmm. waaw tey lan nga jàpp ne moom mooy may xaalis ci politique bi te ñoom mayu leen xaalis ci li nga xam ne moo di musique bi ku ci mel ni Queen Biz moom. Mm. yaakaar naa ne musique bi day fay. Mm. ku ci mel ni Pape Djibril Fall. Mm. journaliste yi yaakaar naa ne loolu tamit day fay. lan moo mm-hmm. lan moo tax tey lan moo nga xalaat ne. loolu moo tax ñu bàyyi seen métier bi ñu nekk dem di dugg ci métier journaliste boobu. waaw naa la kon naa la xaalis bi. parce que journaliste ba man tam may xaalis bu bi bi génn ci politique journaliste mënu ko sa looloo tax. journaliste bi day fay de. waaw day fay waaye nag. Ah. li politique di fay. Mhm. laa la wax ne mu ëpp doole li journaliste bi di fay. mu ëpp doole la seen ba di fay. Mhm. loolu tax kenn bis daw seen ba dugg si politique. parce que léegi tey nommé ko député wala ministre wala DC. Ah. wala maire. Ah. ainsi de suite da ngaa yaakaar ne noonu la yombee dugg ci politique tey rek bu subaa ñu yomee nommé la. maire wala député boo bokkee si au waa mhm. la ñu nommé la dara. boo nangoo jébbalu rek ñu jébbal la mbir yi. Mm-hmm. boo nanguwul jébbalu nag. ah déet boobaa nag moom yaa ngi rey sa bopp moom wax dëgg yàlla politique moom boo say nangu boo say dugg. Mm-hmm. dugg nga sax duggalal lépp rek soo bëggee génne dara. Mm-hmm. waaye nag boo duggalul dara doo génnee dara. d' accord est ce ñoom tamit li ñu nekk nii maanaam yoon bi ñu yoon bi ñu bëgg a bàyyi maanaam sax mën nañ ko bañ a bàyyi hmm. mais yoon bi ñu nga xamante ni bëgg nañu ko woon ginnaaw tuuti muy li nga xam ne moo di musique bi wala journaliste bi hmm. ñu dugg ci li nga xamante ni moo di politique bi est ce que loolu du yàq ci seen yoon bee dara journaliste bi doxatul musique ba doxatul looloo tax ñu bàyyi ko fa musique mu ngi fay des ñu fayatul di musique mu ngi fay des boo xoolee ñaara fi nekk si sur le scène oui boo compté wala gën ngaa bëri ñett ponkal mi seen ndey seen baay ji Youssou Ndour roi de mbalax <laughs> tam de kasa topp doomi coon Seck Jalla balaago Seck waaw kasa mhm. topp di waa jële dëkk Pikine ñu koy wax lan Sidi wala déedéet eh, waaja Pape Diouf ba Pape Diouf waaw ñett ñi dañoo ne si la seen tudd nga ku ma gëj a gis Pape ah, sama doom baay ah mu ngoog ku ma gëj a gis si musique eh, léegi nag eh, comme que lii fi doxatul noonu mhm. foofa mhm. xool musicien ñaata la ak ñi fay ñaata la na am na ñoo xam ne déggatoo leen déggatoo leen ay eh, ami mbeng déggatu ko. Mm-hmm. ah ka sant eh, dégg nga maam eh, kenn xamatul. Fatou Kine laam kenn déggatu ko. yaay Kine yaay ah, maman mu ngi fi. dégg nga de dugg ci yooyu. mu ngi noonu ñeneen ñu baree bari bëgguma dégg may leen kii. Mm-hmm. waaye déggatoo leen. Mm-hmm. léegi nag bu ñu fëloon rek dugg si politique bi léegi ñu am xaalis ndax musique ba doxatul léegi nag journaliste ma it mu ngay suux ndànk par ndànk. ndax léegi presse bu génn yaa ngi suuxal sa morom presse. Mhm. journaliste ba mu ngay taxaw sa média bële di suuxal moromu journaliste am. Mhm. léegi nag kon il faut ñu retirer wu foofu dugg nag si politique ba ndax kat wane na yoon. ameen ay dara nga ndële mu ngay mos de. mu ngay mos waaw mu ngay mos bu mhm. baax. te yaakaar naa fii ak diwen yaakaar naa mu encaissé loo xam ne sa mairie ba. sa fayga yaakaar naa du ko encaissé journaliste gi depuis mu nekk huit ans fii des médias. Ah, nekk Pape Djibril Fall itam mu nga fële. Mm-hmm. dana xam ne léegi tey fële yàggoon fa arrangé wu ko nekk fa arrangé fii daal moo yëf yi. Mm-hmm. moo yëf yi. d' accord sëñ est ce que euh, politique bi xawul ubbeeku. Mm-hmm. ubbeeku boo xamante ni maanaam ku jug rek da ngay dem dugg ci biir est ce que tamit yenn saay duñu xool loo xamante ni balaa nga dugg ci politique bi dinga nga loo xamante ni lu leer la ak suy leer soogaa dugg ci. politique ndax dafa amul école nag. amul école amul école bi amul école waaw. voilà bu fekkoon dafa am école. nga mën faa génne ak diplôme. ah. d'études BFM. Mm-hmm. Euh, baccalauréat plus plus plus. Mm-hmm. ñu xam ne am nga niveau bii war ngaa mën a politique yi ku la jox poste bii. poste nombre euh, diplôme bi moo ko mën a yore. ñu xam loolu la waaye politique bi amul école. comme amul politique nag amul école. amul école pëccëxoo la. ñëpp a say dugg. mais mais bu yàggee réew mi yëpp ay politiciens la ñuy doon. ñëpp politiciens lañ. man mii sax politicien laa yow mii politicien man kay jekk ba ma leen jàkk xamoon naa ne politicien ah, bu mag sax bi parce que <laughs> politique du dara lu mooy. Mhm. am koo faral dong. foo faral Ousmane Sonko. Mhm. Bougane Gueye Dany wala kan. man nag wax dëgg yàlla sama far moom ma wax ko si fii si wasaare. Mhm. c'est difficile. xaaral ba ma foofu tukki bi. non xam naa Sonko la. Euh, euh, en tout cas daal bul bàkkaar ndax yaa ngi si koor <laughs> <laughs> kon daal politique. Euh, ñëpp a ngi si biir. parce que amul école bu fekkoon am na école daal ñu xam kenn ku ne lijaasa boo sa génne. Mm. comme amul nag école nag. Mm. wax dëgg yàlla dugg rek la. Mm. comme amul fay. da ñëw rek dugg duñ laaj dara. dugg rek mu gën a yomb. mais est-ce que tey booy dugg ci politique jar na ngay bàyyi sa métier bi nga nekk est mënoo tey boole métier bi nga nekk ak politique bi xam ne boo génnee ci politique bi mën a continuer ci métier bi nga nekkoon. ah loolu def naa ne ñoom moo génneen ndoy baan ak amee ak amee wax dëgg yàlla. Mhm. ñu ne mënu leen a boolante cumul des fonctions lañ koy wax xaw ma. Mhm. wala lii loi bi da koy bañ. loi bi da koy moo tax ñu séppi leen sa complètement mhm. ba ñu nga berse seen yëfi bopp génn ma ala kulli xaal ñu génn sax comme loi bi da koy tere mu ala kulli xaal nga def loi bi mhm. d' accord d' accord sëñ Habib yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo bu ñu génnee si point boobu dañuy dugg ci li nga xamante ni moo di euh, li nga xam ne moo di suukaru koor gi booy mm. wala ngay joxe li nga xamante ni moo di ndogu. Mm. am na ñu bëri ñoo xamante ni dañuy préféré woo li nga xamante ni moo di presse bi mm. ñu ñëw wuyu si leen est ce que tamit loolu yoon la si li nga xamante ni est ce que loolu nuróowul sax ngir sallaay wax ci li nga xamante ni moo di Sénégal bi ñu nekk nii. parce que yàlla ngeen déglu ko bu baax araayta allazi yukazibu biddiin mm-hmm. yow Muhammad ndax xam nga kii weddi diine kan la mm-hmm. moo mel ne ko xaw ma ko de mu ni ko fasaalika allazi yad'u al-yatiim mooy ki nga xam ko maltraité mm-hmm. xam nga kuy jirim mooy ki baayam génn àddina xam nga kuy baayoo mooy ki yaayam génn àddina kon ku fekk ab jirim walla ab baayo di ko maltraité. Mhm. ne mu ne yaay ki weddi diina. Mhm. wala yaxuddu ala taam miskin bu ko bu nga xam dëgg-dëgg na mooy koo xam ne du xiir ni ñu si joxe ñam moom du joxe ñam mais du xiir ñu sa jax mhm. te ku sa nekk mu découragé la. fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saawun ak ñam ki nga xam ne day caaxaani julli waxtu julli jot du dem. dernier bi nag mooy allazina hum yurauna foofu nga ma doon xaar maa ngi foofu mooy lan balaa ngaa joxe dara caméra yi ñëw taxaw tiim la mm-hmm. yàlla gis ko weddi diine dëgg-dëgg jàppal maanaam balaa ngaa joxe dara caméra yi ñëw teew balaa ngaa joxe sukuru koor caméra yi ñëw balaa ngaa joxe ndëgu caméra yi ñëw yàlla nee na gis ko weddi diine jàppal alladina yurauna nas ku weddi diina. waaw ku weddi diina. Mm. mooy koo xam ne balaa joxe dara caméra yi teew balaa def dara ma ñëw. mais Serigne Habib est-ce que tamit côté boobu ñu koy def est-ce que bëgguñu ñeneen ñi di jël si ñoom exemple comme ça tey bu ma ko defee woo caméra yu ñëw filmer ko yow nga jël nga ne ah lii baax na idée bu rafet la naa jël si yow exemple pour ko déedéet boobaa def nga roy nga loo xam ne baaxut roy nga loo xam ne dañ koo tere pour nit ki roy loolu kay roy loo xamante ne lu baax la Serigne Habib yóbbu joxe ay ndogu hmm. wala yóbbu suukaru koor wala hmm. jël ñoo xamante ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw nga yóbbu leen loo xamante ne dinañ dama la séparel de hmm. joxe moom ku ne xam na ne baax na. Mm. ndax yañ koo dañ koo tudd dañ koo wax. Mm. ah allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah. Mm-hmm. ka masali lazi comme koo xam ne ni dangay joxe lu baax. Mm-hmm. yàlla nee na kooku laa bëgg kooku laa tànn. Mm-hmm. waaye nag kuy def lu baax ba pare nag jël micro wala bu caméra tegal sax. yàlla nee na mooy kuy def lu baax pare fab lu ñaaw lu ñaaw ñàpp ko sa kaw ñoom dañuy def lu ñàpp lu lu bon lañ jël ñàpp ko si kaw lu baax loola jarul mais suñu abib man de jàppewu ma ko ko man maak yow fi mu nekk nii bokkuñu ñu gis-gis man jàppewooñu jàppewuñu mooy ko loolu xamante ne ni mm-hmm. lu ñaaw la man mm-hmm. dama jàpp ne rek tey ñi koy def xëy na dañu bëgg li ñuy mm-hmm. wone ñeneen ñi nga xamante ni dañu yor seen xaalis tëdd ci jàppalewuñu ñëw doole dama jàpp ne que ni loolu moo tax ñu koy def pour ñeneen ñi jël ci ñoom exemple boo xamante ni bu ñu gisee tey nit di joxe euh, ñu dem joxe bëgg si joxe mooy sa loxo ndeyjoor bi ko joxe loxo càmmoñ bana bañ a yëg li loxo ndeyjoor bi joxe Mhm. lii de la yonent bi xanaa lii kay kon romb na um kumpa ak nëbbu mhm. kon lu jar kon ngay ñëw di joxe di génn ay micro wala boog si kaw jaru ko ndax koo koy defal du yàlla mhm. yàlla kay mu alim ku lu xëy moo xam lépp sirran wa i'laanan si li nëbb ak li feeñ subhaanahu wa xam na ko kon kay jarul sax woo kenn nan ko kaay ma defal la wala boog kaay leen xool kon kooku judd roy kii roy mooy Seydina Muhammad te mosul joxe dara Mm-hmm. di ko wax. Mm-hmm. kon ñooñu di ko def jaruñoo roy. jaruñoo roy amuñu diine nekkuñu si diine diine santul leen ko kon jarul roy. mais sëñ Habib sama genre gi balaa ñoo mm. balaa ñoo joxe. Mm. dañuy jël exemple ci nit. Mm-hmm. da ngay gis nit génn joxe ji. Mm. nga ne ah kii kat idée bi mu def loolu lu baax la est ce que ah. man mënuma def ko comme kii. Eh. li nga ni def na ko. Mm-hmm. kooku génnee joxe loolu yàlla ba ñu ko yaakaar na soxna Mbène xanaa dégguma génne joxe kay baax na macha allah. waxuma la génne waaw génne joxe. Ah. baax na ah. mais yow li nga sib li nga wax ne baaxul mooy génne joxe di woo caméra yi ñu ñëw. loolu nag moo fi am loolu moo fi am. loolu moom mënoo ko fi génne ndax ñiy joxe ñëpp masor parti bi. Mm-hmm. génne kamera wala woo mbooloo mi rek. wala boog na ko ñëpp yëg ala kulli xal. Mm-hmm. lu ñëpp yëg moom yàlla ne ne sib naa bañ naa araamal naa dootuma nangu sax yool ba say bay ko du am sax yool da koy nëbbu ki nga bëgg a jox xam nga ko. Mm-hmm. waxul ba këram diggu guddi jox ko la nga koy jox oh. nga am si tiyaabo. waaye déedéet. damay xaar ba nga xam ne heure boo xam ne ñëpp a nga fa. Mm-hmm. ma ñëw su ma ñëwee dama koy woo mu ñëw ma yëkkati ko nekku ci kanam mbooloo mi. Mm-hmm. maa la jox cent mille francs yi sugaru koor. Mm-hmm. jaru ko. yàq nga lépp. waaw sëñ Habib na man de maa ngi boo ko gis-gis dama damaa jàpp ne fi mu nekk nii loolu jar na ko parce que Sénégal yaakaar naa ne fi mu nekk nii. Eh? loolu la ñuy doxe hmm. tey balaa bu ma yóbbul sëñ Habib suukaru koor. Hmm. dinaa woo waa wasaare dinaa hmm. woo ñeneen ak ñeneen ne leen kaay leen dama yóbbu fu suukaru koor wala kaay leen tey dama. joxe ndogu lu tax nga wasaare loolu leen di wooyee lan nga lan ban intention nga am pour. pour ñu ñëw filmer la. film boobu pour yow loo si bëgg. jox la micro nga wax ah. ñaax ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci seen xaalis bañ koo joxe. Hmm. ñu jël exemple dem joxe ji seen xaalis maanaam jàppale. ñu très bien bu dee moom. Mhm. c'est ça la réalité. geste la. waaw loolu geste bu noble la. c'est ma la film bi parce que. da nga wane exemple. waaw waaye dama la wax ne la mesure parti bi. Mhm. defatuñu loolu pour yàlla déedéet. bu ñu ko deful pour yàlla la pour kan lañ koy def. pour xanaa doomu aadama Njaay yi ñu koy defal moo tax ñoom loolu rek lañ say am. gis ba rek waaye duñu saam fay ko bay ko si yàlla. kon da bëgg a wax ne ñi woo micro ñi nga caméraman yi duñu am li nga xamante moo di yàlla ci li ñuy def. amuñ sa dara bu dee loolu lañ si jublu. sëñ Habib loolu moom. ki nga xamante ni da ngaa fekk mu xiif nga jox ko mu lekk jox ko mu naan. loolu moom di nga ci yàlla. ma nag wax dëgg yàlla dégguloo. dégg naa la kay. jox nit ki kay wax naa la fii si kanam ne la. képp koo jox te yàlla rek a tax. Mm. am nga sa fayug suñu borom. képp koo jox te yàlla te amoo sa fayu yàlla amoo sa fayu nit ndax nit du fay. waa nit ñi dañuy def. Mm-hmm. te yàlla rek tax. Mm-hmm. mais yow li nga wax que ne. Mm-hmm. nit buy def te yàlla rek tax jarul muy woo caméra. di ko filmer. waaye Sénégal fi mu nekk nii loolu fi mu nekk mënatu ci see ñàkk. tey booy te yàlla rek tax tamit di nga woo caméra yu ñëw filmer la nga joxe waaye te yàlla rek tax nga koy def. doo ko def ngir bu yàlla rek taxee moom garaawul moom laa la wax ne la un point un trait. waaye nag dama la waxi ne la. man ànd ak yëpp ngir yàlla tax man nekk déedéet. ndax maa ngi ci dëkk bi xam naa li dox ci dëkk bi. Mm-hmm. waaw fii ndeeleeg njaxal yi. Mm-hmm. ala kulli al micro yi teew jiwli ñëw nga wane ko ñëpp dar la. la loolu bokkul loolu bokkul ak sixième. benn la rek c'est la même chose loolu teraanga la te teraanga <laughs> àdduna booy joxe sa goro wala ngay jox sa sa njëkkee ay ay teraangam. foo nga woo géwél yi ñu filmé la dara joxe joxe la rek joxe la rek uh-huh, sax ngi oo géwél yi ñu ñëw tey mooyee ko. da moom ah, jarul ay woo géwél ak yooyu ay kii kon ko kon. Mm-hmm. ah d'accord sëñ Habib tey bu ñu téyee ci li nga xamante ni moom moom moo wax nga ko ne loolu jarul woo ay ay ay micro ay caméra hmm. kon tey ñi nga xamante ni nañ ñoom ñoom ñoo ko bëgg a def hmm. tey ban yoon la ñu mën a tegu hmm. ba def ko yàlla nangul leen li nga xamante ni loolu la ñuy jox li nga xam ne moo di néew di doole wala loolu la ñuy jox ci ñi nga xamante ni dañu fi yeenu yeenu heure dog da leen ci kaw tali bi ñu war a dog amuñu tànnar ba bu ñu dogee wala amuñu dara loo xam ne dañ ko war dogee wax nga lu am solo nag si koor yi yi. ko jox porom oto yi. ña ñuy romb. ñooñu nag ñoom ñooy ibti xaa amadaati wàcc yi ñooñu ñoo sàkku. Mm-hmm. te yàlla rek tax. Mm-hmm. loolu moom c'est bien ça. Mm-hmm. ñooñu boo yooyu góor leen ci bu baax. ak borom cin yi si koñ di taal heure bii. leen bu baax a baax a baax a baax am ngeen fayu suñu borom. ak kontaan ci Seydina Muhammad ak képp ku baax nag ci loolu. waaye ku mooy ñoom woo wasaare ñu ñëw. amoo si dara nga si amut doo am fii doo am fële perte nga fii perte nga fële al xusraanu fi dunia wal axira mhm. bisimilah benn question <laughs> na démb ay li nga moo di ay ndogo moom tamit xalit waaw borom boo demee nag nga jéem ko yow itam nag sa koñ ba nga ne. man damay xaar sama anniversaire bi ci laay joxe lépp la set incha allah na ko ñëpp waaj. le set maa nga sa biir de sa kafe ya. ah maa nga sa biir waa caméra yi xanaa duñ ñëw parce que ne nga loolu dafa araam loolu kenn du ko. wasaare dañu nekk si job. ah. time is money. <laughs> d'accord. non si abi mënu ma laa si job lañ nekk de si lañ nekk ñoom. dañuy job lañ nekk waaw. ñoom filmé luy nekk foofu. tàlluñ kenn sa micro. waaw pour nga leen di taggal seen juróom-ñaari maam. non fii kenn tàllal waaw nit ñi. waaw tàllalatuñu kenn micro. pour ñu leen di moom jël micro tàllal ko pour suñu Habib euh, sant la gërëm la si li nga xam ne moom nga def. Mhm. doo si am gërëmu suñu borom. Mm. mais sëñ Habib ku def lu rafet foo ñu sant la gërëm la tamit. macha allah bu baax a baax a baax a baax la boo defee geste bu rafet. Uh-huh. foo ñu sant la gërëm la. pour beneen yoon. Mm-hmm. boo koy def nga sawar ci. waaw waaye sàkku si ngërëmu suñu borom boo ko def rek yaa ngi yaa ngi def lu bon. waaw mm-hmm. ah, kay. d' accord yàlla dina dina ñëpp seen xol incha ah. allah rabi yaakaar naa ne geste bu ñuy def daal la waaw yàlla kay dina fay ñëpp seen xol noonu ndax kat wa maa ataakum. Mm-hmm. <laughs> ilaa man aata laa bi maanaam maanaam bis penc ku fa ñëw xol bu sell dong dong dong dong moom la yàlla yàllay fay. Mhm. xol bu sell nag moom ku ne xam na ko bu kenn ni xaw ma ko. Mhm. mooy yaa xam li sa xol li nga ëmb. ndax baax na wala baaxul. Mhm. boo ko xamee suñu borom xam na ko boo xamul suñu borom xam na ko te war nga xam sax. Mhm. ok d'accord yaakaar naa ne kàddu yooyu am na ñoom ñi koy def kon comme ni ko suñu Habib waxee. Mhm. nañu ko bàyyi te bu ñuy séddalee te ñu xool li nga xamante ne nii moo di néew du doole mhm. ñu dem jox leen ko ci sutur la bala jël li nga xamante ni moom ngay joxe. dem di ko jox néew doole woo caméra yi ñëw tiim la nga tiim kooku de ko ko jox loolu mel ni que defaratoo kooku. te yàlla rek tax mais da ngay def ngir gisal da ngay def pour nit ñi filmer la dugal euh, xam ne moo di YouTube bi TikTok bi yeeg yooyu ngay wonewu a yaakaar naa ne tamit loolu tamit jaru ko booy def da ngay def te yàlla rek tax jàppale ñi nga xamante ne ñooñ nga bëgg a jàppale ci sutura ñoom tamit ñu togg ko ci sutura parce que ki nga dem di jàppale Sëñ Abib mhm. xamoo boo xam ndax bëgg na caméra génnee ko wala déet mhm. mais boo ko defee demee pour di ko jox mhm. boo ko filmé tamit xëy na moom dina am kersay bañ laa wax ne que bëgguma caméra jël ma a jumaa jooju filmé woon nañ ma ndegu waaw si biir jumaa ji ñuy ndegu mhm. waa ji téye caméra bi di filme ndeke filme ne ma bi may seex tàndarma bi mhm. ak jël café gi mhm. yéeguma si dara man daal maa toog benn bis rek su ma benn waaye ne ma man de si Habib gis naa la si Facebook bi mu mel ni eh, jumaa ji si yoonu aéroport yaa ngi téye café bi ak doomu tàndarma bi daw ma waaw yëguma ko de xam naa dañu fa invité woon nag waaye nag loolu la sa borom am mu ne ma wax nga musib ma ne ko ah loolu la sa am de. mais yenn saa yi borom mën na ko bañ a mën na ko bañ a fekkee mën na bañ a. mën na ko fa dugal kenn dugalu fa ku mooy moom. te loolu la sa bëggoon c'est l'intention qui compte. loolu la. non yenn saa yi c'est vrai yenn saa euh, yi yenn saa yi suñu Habib man non non ci presse bi laa nekk xam naa li ma lay wax yenn saa yi da ngay gis koo xamante ne nii dafa bëgg ci sutura. Ah. mais nit ñi ñooy for ñooy forcer. Hmm. pour filmer li nga xamante ne nii moom lay def. fan lañ ko jëlee ku capturer rek am na foo ko capturer. waaw ku capturer am na foo ko capturer. ah oui c'est vrai fan ko capturer na foofu mooy ndey mbi ga foofa mooy dàtt ba déedéet parce que tey mën nga maa garab gii non non garab gii dàtt bi mhm. mooy bant bi tronc bi banqaas yi lépp ci tronc bi la aju. Hmm. tey tey mën nga maa jege. Hmm. jege ma yow yow am sa alal. Hmm. tey ne ma tey damaa bëgg a dem defi nangam. tey ma istati loolu. sama genre gi nga xamante ni dañoo bëgg kaar ba bëgg a dee. yor seen micro dem si jël seen caméra. dem fekki kooku ca bërëb ba mu nekk di ko filmer te waajooju yow doo yëg ne caméra yi ñëw nañ di filme mais xanaa yow numéro dafa amul numéro téléphone yi sa numéro mooy fàng ñu xam ne kii moom moo moo lii. waa ci ñi ko bëgg. ah waaw ah. kay kon sa ña ko bëgg laa wax. ci ñi ko bëgg ki ma ko def laa la wax ne la sa loolu la sa am mais amu sa fay suñu borom. te su ma ko xamoon sax daa ko porte plainte. dama xeex ak moom porte plainte de. yay ak nga def ak ah, naan café. ah bu nga yi mu kap mu mu porte <laughs> oui c'est vrai. <laughs> baax na ci li nga xamante ne ni moo di débat boobu. Uh-huh. dugg ci li nga xamante ne ni yaakaar naa ne vidéo bi démb la muy ñaari élèves yooyu nga xamante ne ni yaakaar naa ñëpp seetaan nañu ko. te ku ko tamit sa tooy na parce que la nga gis ñu koy defande ci ci ci vidéo boobu ki nga xamante ni moo mën wax moo sax mën waaye ki nga xamante ni moo nekk ci kaw gis gis ngeen ñëpp seetaan nañ dóor yu metti bi mu xamante ni moo ko doon dóor moroomam mhm. naka nga jàngatee vidéo bi ak bi nga seetaanee vidéo bi ban yëg-yëg nga ci am irhamoo la yonent bi waxoon rek xamoo man fi sama yi irhamu man fil ardi ko man fi sama yi yërëm leen ñi si suuf ñi si kaw yërëm leen mooy nit ki boo ko fatee kaw rek mhm. yaa nekk si moom asamaan lépp lu la fatee kaw rek mu la wax asamaan mhm. duwul asamaan te li ngay téew kon ki fatee mag. mag wala nga ëpp doole. Mm-hmm. kooka bu yërëmul yàlla ne du ma yërëm. Mm-hmm. du ko yërëm kon di leen yërëm ndaw ñi di leen yërëm ku ëpp doole. Mm-hmm. ndax yàlla mën leen yërëm li mel nii rek moo tax yàlla ji wan ñu ginnaaw. ah te fi ne mën nañu wax ne yàlla ji wan nañu ginnaaw de. <laughs> yàlla ah ji wan nañu ginnaaw mooy. yàlla yow li ji wan nañu ginnaaw <laughs> waaw leeral boo ne yàlla ji wan nañu ginnaaw damay argumenté ba argumenté fu dara newul waaw wax bi de mm-hmm. nel tekk rek tekk la yoon waaw nee naa tekk ok bàyyi <laughs> xam nga lu am solo mbenn mm-hmm. mooy nit ñi dañoo safootul yàlla mm-hmm. te jaam nit ñi eh, pour yàlla la yàlla pour nit ñi la ba nit ñi euh, euh, euh, joxatul gëdd seen moromu nit. Mhm. yàlla neen du ma leen jox gëdd. dégg wax bi de. Mhm. inna allaha la yuqayyiru maa bi qawmin hatta yuqayyiru maa bi anfusikum du ma changé mukk seen côté fekk changé wu leen. Mhm. fekk changé wu de léegi nag changé nañ parce que ki def lii. wax dëgg yàlla ki bàyyi ma sax moo ko tane. ah. kon ba yàlla di bind nit mais du saar mm-hmm. sa moromu nit nga topp di ko tortité mu naan baal ma mm-hmm. baal ma mm-hmm. dee na wala deewul walla déedéet deewul deewul mais sonn na de sonn na kay man kay moo tax ma ne la yàlla war nañu ginnaaw est-ce que bu yàlla toppoon ci loola ah est-ce que moom dana dund déedéet du dund ñëw sax si àddina bay dund nag dama ne la yàlla nañu ginnaaw Mhm. daa la wax bu ñu delloosi wul na yàlla du delloosi. Mhm. maa la ko wax. d'accord nga jàpp ne est-ce que fi mu nekk nii yërmande abati na ci li nga xam ne moo di réew mi. réew mi am na ñu ko yore ba tey de. mais bariwul de. waaw foo dem rek foo dem am na lu ñuy tuddee minorité ak majorité maa la wax loolu minorité ak majorité minorité bi nag jullit yi ñoo ko yor majorité bi yéefar yee ko yor. Mhm. mu jox d'accord boo seetaanee vidéo boobu nga xamante ne nii xale bi mu ngi jàpp moroomu xelem bi di ko dóor te li mu koy dóor yëpp man li ma gis muy dóor yëpp ci boppam bi la koy dóor tey ñaari góor lañ est-ce que gënutoon booy xeex nit man ci li ma jàpp boo demee ba bëgg a xeex ak moom ngeen jàkkaarloo comme ñaari góor ngeen ngeen dóorante moo gën nga dikkoo ko ginnaaw hmm. tey ay loxoom ba pare di dóor ci boppam hmm, hmm. waaw xeex nag moom xeex la rek waa xeex xeex la rek mais sëñ Habib. moom ak moom ak sa làmba ja yëpp benn la rek. man xeex moom préféré naa noo mën a def ba ko def. mais man xeex préféré naa ci sëñ Habib. Ah. may xeex jàkkaarlook yow nga may dóor ma lay dóor mais mm. du ma la dikkee ginnaaw. Ah, mm. ba mën a téye say loxo soog laa dóor. ah loolu préféré naa ko si xeex. Eh, eh, waaw bu yow kon xanaa yow mosoo xeex. yee. Hmm? bul def loolu ñi may seetaan dañuy wax te man xeex naa ba taay. ba taay. foolaan dóor ak foolaan ngàdd. man fu ma neex laa man du gis nga ma kon waa ji itam. mais man nu mu def ba am victoire rek pour gagner li mu bëggoon mooy rek toroxal ko dóor ko benn mu rey ko wala boog ko. non non man man damaa gis fa nga xamante nii kenn du fi dóor nit. moom uh-huh. foofu la doon viser pour dóor fa li nga xamante ni kooku la doon xeexal. ba pare man li ma gën a jaaxal ci mbir mi Serigne Habib mm-hmm. mooy xeex bi li muy tàng tàng ak li muy metti metti eh. ak li waa ji di yuuxu yuuxu naan ko baal ma eh. am na ku nekk ci ginnaawam yore téléphone am di filmer eh. kooku lan moo tax moom ñëwul àtte si xeex bi mais mm-hmm. moom dafa yore téléphone di mm-hmm. filme ngir bëgg loo xamante ni dina ko dugal nit ñi gis ko mm-hmm. kon dellu si nga si li ma la wax ne leen nit ñi ah vidéo yi ak audio yi yàkkamti nañ ko publier moom daal source bi si man la bàyyee ko rek ngay nga nga nga foofu rek nga la nit ñi yàkkamti rek bi daal man maa ko njëkk a publier maa ko yore maa njëkk a joxe maa ko loolu si bëggoon mais bu arrestation di am war nañ ko arrêté loolu la arrêté nañ moom moom police moom teg na ko loxo moom moom ki doon filmé ki doon dóore yëpp yaakaar naa ne police nekk que euh, waa mhm. li ma wax sànq laay waxaat nit doo ko jàpp di ko dóor foo xamante ni waroo ko faa dóor teg ci nit boo koy dóor sëñ Abib man ci li ma jàpp ba mu ne la baal ma di nga am xolu yërmande tuuti daal di koy baal waaye baal ma boo xamante ni moom ki ki nekk si suuf boo ko dégg mu ngi naan ko baal ma baal ma mm. mu naan ko du ma la baal waxal ko yaay sama yaay yaay sama nijaay mm-hmm. tey nit ki boo koy dóor ba mu ne la baal ma sëñ mm-hmm. Habib amal xolu yërmande baal ko mais nga continuer dóor yooyu tamit mm-hmm. est-ce bu ko reyoon tey ay mbokkam lu ñuy wax waaw mën nañ koo dem wutali kay jaaxle rek jaaxle rek boo bay du mujj fenn lu mooy rek ah, ñu jël si mesure rek pour la ngay dégg rek comme la xewoon Louga rek dañ si jël mesure rek moom daal cas fi am duñu prévaré mais dañuy xaar ba kaa am ñu door a prévoir loolu nag fekk Sénégal ñu ngi si. Mhm. du dem fenn du bouge centimètre. Mhm. kooku maa la ko wax. d' ñaari élèves dañ est ce que éducation bi tamit desul ci li nga xamante ni moo di école yi. école bi éduqueetul dafay enseigner. école bi éduqueetul. éduqueetul dafay enseigner. Mhm. te pourtant dañ ne ministre de l' war na xale bi. bàyyeekoo si kër gi dem si école bi ñu éduqué ko mhm. enseigné ko mhm. jàngal ko yar ko mhm. du dëgg mais léegi dañ lay jàngal rek mais duñ lay parce que ka lay jàngal sax moom moo njëkk a xamadi ndax day taxaw si di classe bi saaga ndey <laughs> si Habib yaa ngi tooñ ñuy jàngale non c'est vrai non yaa ngi tooñ ñuy jàngale ñuy jàngale ñuy jàngale ñu ngi def seen kémti laay kàttan xëy na sama genre gi nga xamante ne dañuy jàng <laughs> ñoom yooyu jor seen dëgër bopp dëgër bopp bopp dama ne la waxuma la sax taxaw si classe bi saaga mais da ngay saaga sa élève bi wala élève bi saaga la yow professeur bi koy jàngal. déggoo ko bi saaga professeur bi déggoo ko fi. naa ko fi ah, kon kay li ma la wax. mais professeur bi saaga élève bi loolu dégg. am pagay xeex kay moo gën a garaaw. professeur ak élève xeex nañ ci digg classe ci digg école nag xeex nañ fa. mais est ce que nekkul boobaa professeur bi day bëgg yar élève bi mais élève bi def koy jaay ka ne. man mhm. nii laa mel mënoo maa yar. waaw loolu tamit mën na indi xeex wala mën na indi saaga. fois mu am si euh, contesté bu ci boobu. Mhm. maanaam defal li exercice bi lu tax defaloo ko. lu tax mayel effacé tabla nga bañ. Mhm. yooyu yëpp mën na si am. mais parfois mën nañu bokk ak sax étudiant bi ak marquis bi gel ah. ah oui c'est vrai. ci biir classe ci bi. <laughs> bu ko defee ñu si classe bi ku nekk nag di ko wan sa morom ne ko. Mhm. pourquoi lii nga koy def si man te kii sama kii la. Mhm. loolu la yu si bari loolu la ma xamala la. lu si bëri kon da nga bëgg wax ne seen élèves yi la ñuy bokkal. seen gel la ñuy benn gel. laa la wax ni benn coro ñu bokk ko. mais loolu teewul ah, professeur bi mën a jox élève bi éducation bu baax. bu boobaa léegi xeebaat dafay dugg si ñoom ñaar kenn ku ne xeeb sa morom. élève bi bu xeebee professeur bi professeur bi xeeb élève bi. Mm. kenn jox du sa morom cër. Mm. ah nu njàng may amee nu yar di amee. Mm. yar du am. yar du am njàng du am sax. no njàng mën naa am mais yar du am parce que ki ngay diiranteel mbagg mënoo koo a yàgg si école moo la gën a ni laar mënta bind sax phrase bu jub si français mm. boo ko doon làkkloo français nga xam ay phrase yu njalaxaan yoo xam ne yu débordé lay wax mm. mais loolu du si ñoom de xëy na ci yenn professeurs yi la ñoom ñi nga xamante ni ñoo leen war a jàngal ah. ba ñu mën a bind phrase yu baax ah. bu ñu bàyyee li ñu leen war a jàngal mm-hmm. nekk ci leneen loo xamante ni dañ leen koy jàngal loolu mënuñu see jëlee xam ah. nit boo koy jàngal danga koy jàngal ngir mu xam mm. waaye danga koy jàngal tamit ngir mu yaru parce mm. que waa ji mm. tey bu fekkonte ne jàngal nañu ko li nga xamante ni moo di yar xëy na du jàpp moroomu góoram def ko jëf ju aw ji nga xamante ni réew mi yëpp fi mu nekk ni moom la ñuy waxtaane de débat boo gis ñaari nit ñu nekk xale bu góor bi la ñuy waxtaane mm-hmm. nit ñi nañu xoolaat seen bopp mm. tey bu fekkente ne ni nit da koo mën nga xool ci li nga xamante nii moo di yërmande bi ngay bi nga war a ko bi nga ko war a yërëm mm. waaye nit ñi dañu amatul yërmande ci seen bopp man loolu laa jàpp mm-hmm. amatuñu yërmande ci seen moroomu jullit yi mm-hmm. tey da ngay jàpp nit dóor ko dóora dóora dóora dóor ba mel ni ku koy bëgg a rey mm. tey kooku bu bu gaañu woon tey ay mbokkam fu ñu jëm ay mbokkam lu ñuy wax tey ki rey du mujjee fenn mën nañ ko sax wutali kay kayitu dof ne dafa dof mhm. mën nañ ko waxal leneen ak leneen kon ki ñu rey moom ay mbokkam ñooy perte mhm. tey waa ji bu fekkonte ne mooy tey dafa rey mhm. ay mbokkam ñooy perte te instant yi yeneen yoon teg na ko loxo del xool du mujjee fenn te du yàgg fenn aussi si prison bi lay mu génn tamit doxaat ay soxla da nga may résumer rek loolu la rek maanaam kon daal nañ di toppatoo daal avant kaad euh, euh, yi am daal ñu toppatoo li nga xam ne moom la la ñuy def ba kaadu am. Mhm. waaw loolu rek moo si am. bañ a def médecin d' accord d' accord sëñ Habib yaakaar naa ne fu mu nekk nii waxtaan bi am na solo waaye dama lay bàyyi rek nga tàggatoo lu tàkk ñu ni mooy di émission bi. di nuyu waa kër gi yëpp. macha mhm. allah di nuyu borom kër gi. Mhm. waaw di nuyu euh, xam ne ñoo fi nekk. di baax a baax macha allah. si débat bi ni mu demee seen sax daay day yàq sax suñu débat bi quoi vraiment <laughs> déedéet seen moom moom moom mooy tax débat bi gën a neex. mais xam naa fan yi dafa xaw a tawat incha allah mais bu ñu génnee ci li nga xamante ni moo di korité bi rek dinañ ko gisaat ci plateau bi. ah d' accord <laughs> ah, jàmm. kon ci kër gi mhm. wasaare ko si àddina bi wasaare ko fu waay mën a nekk. Mhm. kon nag euh, prochain jeudi incha allah après le ramadan lay doon. Mhm. wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. acca jërë ngeen jëf yaakaar naa ne ni lañ leen ko waxee woon fi mu nekk nii ñu defoon plateau bu spécial man ak ki nga xamante ni moo di sëñ Habib comme seen dafa ne dafa xaw a tawat ñu ngi koy ñaanal rek mu delloo si si mu dellu si si jàmm ak salaam moom moom mooy tax plateau bi gën a jax gën a neex mais fan yi incha allahu rabbi bu ñu génnee ci li nga xamante ni moo di koor gi rek bu korité bi passé suñu plateau bi ñuy njëkk a def moom dina toog daal di leen jukki li nga xamante ni moo ba mu neex waaye nag comme dañuy génn ci li nga xamante ni moo di weeru koor bi te tey bii mooy émission bi mujj bi ñu leen di baalu ak rek di wax que ne li fi jub rek si yéen la waaye li fi dëng aussi ñu santeekol ki nga xamante ni moo di yàlla suñu borom di leen jéggalu bu baax baax ci li nga xamante ne nii euh, loolu la ñuy def ndax li nga xamante ni moo di site internet metti na boo tax na ki nga xamante ni day jënd connexion am toog di la seetaan toog di vi say li nga xamante ne nii moo di say émission di la encourager aussi ñooñ tamit amuñu seen fay dañ leen di bàyyee ki nga xamante ni moo di yàlla suñu borom mi am fay rek mu fayal ñu leen ñu leen di baalu àq bu baax a baax a baax a baax a baax ci kàddu yi ci li nga xamante ni dëng na fi ñu leen ciy baalu àq bu baax sëñ Abib mhm. maa ngi lay jaajëfal bu baax di la invité sama anniversaire bi dégg le 7 mais incha allah tombeeg samedi. damay fekk nag dëkk ba. dalay fekk dëkk ba waaw. waaw fekk ndakaaru rek na ñëw invité nañ la incha allahu rabi. nga nga bàyyi mu sama affaire say bagage waaw dinaa la fi bàyyi say bagage bagage yi faatoo ko gérer dinaa la wax mu bàyyi la fi bàyyi bagage incha allah. di jaajëfal sama caméraman yi di leen jox rendez vous ba beneen yoon incha ak si sa benn séeréer bu naay jaajëf.